asalaamaaleykum dama ñëw dëgg la ñii ñii ñëpp xaw ma fi kenn yàlla xam na ne dama ñëw en tant que euh, doomu aadama bu dund comme kaawu euh, soxna Astu waaw loolu moo tax ma ñëw. parce que du yoon yow nga amee méttit yaakaaroo fenn war a dem hôpital pour ñu dimbali la boo demee ñi lay toroxal di la jànni di la ñàkk kersa loolu du yoon dëgg la de am na médecin yu baax de mais tamit médecin yi nga xamante ne dañu bon wala sage-femme yi nga xam ne dañu bon dañu leen war a dénoncé ñu génne leen ci hôpital bi parce que ñoom seen liggéey warul nekk hôpital parce que opital ku fay liggéey da nga war am yërmande da nga war a laabiir parce que kii ñëw dafa soxla loolu waaw ñeenti bant yi ma yàlla wësëgal yëpp bu ci nekk dund naa ci maltraitance te bu ci nekk hôpital bu ci nekk bokkook sa moroom te yooyu hôpital yëpp ñoo ngi fii ci dakaar gi te benn bu ci nekk bokkook sa moroom bu ma demee maltraitance bu nekk dund naa ko foofu dinañ la ñàkk keesa dinañ la toroxal dinañ la bañ a faale bi ci mujj sama doom bi ma mujjee am nii sage bi lan la def toog di woote téléphone këram di ndax reer na ah ndax doomam def nañ ko lii ndax doomam tëdd na ndax doomam laata alors que man maa ngi souffrir ma di ko woo faale ma ba heure bu mu ko neexee mu jëntal ba lan la ma wax yow roqee boo tëjul sa gémmiñ gi duma la faale dangay ngay nekk foofu di da ngay sonal sa bopp rek loolu la ma mujjee wax bi ma accouché ba pare biñ ma bàyyee damaa daanu daanu laa def ndax tellement que sonn naa man yàlla moo dund moo tudd may dund ba heure bii mais dund naa métit yi nga xamante ni que bi waroon na fekk fàtte nañ ma yàgg na waaw ci sama ñaareelu doom ma accouché vers une heure du matin sage-femme ba bàyyi ma fa dem nekk ci leneen balaa muy dellu si fekk ànd bi yéegaat na une heure du matin ba cinq di du matin bi ñuy julli fajar ñu ngi ci man pour dindi ànd bi mënuñu fexe ba addindi ko souffrance boobu moo raw wasin moo raw wasin te loolu ñaanuma yàlla benn jigéen dund ko ñaanuma yàlla benn jigéen dund ko ci laa woon man mii doom daal xam naa ne damay sono sama bopp mais suma continuer nii moom ñàkk sama bakkan laay laay laay mujjee def waaw muy lu métti luy métti jour boobu bi ñu may génnee salle d'accouchement fauteuil roulant yi ñuy teg handicapé yi si lañ ma teg ndax munuma dox sonn naa loof naa ñàkk naa deret bu bëri ba fii may wax ak yow nii maa ngi ak bi nga xamante ni que ndigg buy métti lundi laa amal rendez-vous hôpital ma di ko traité te seen dërëm du ci dem te loolu yëpp ñoom ñoo ma ko teg ñoo ma ko teg ah xam nga métti na voilà. loolu moom dama koy ñaan président de la république ak ministre de la santé parce que loolu mooy li jaadu gis nga kaawu asu soxna bi dafa yàlla moo leen weer rek mu feeñ. mais kaawu asu soxna bi ñu bëri bëri bëri bëri ci ay jigéen faatu nañ ñu la waxal mort naturelle say mbokk jël la dem suuli après jeex na mais bu fekkee ne sa mbokk assisté na la moo xam sa jëkkër moo xam sa yaay wala sa kenn ci sa membre de famille boobaa ñoom sage femme yooyu nga xamante ne ay pombiteer yu nëpp lañ ci biir saako bi dinañ éviter di la maltraiter parce que xam nañ ne léegi boo ko buñ ko defee booy génn di leen dénoncer waaw parce que internet baa ngi fi léegi képp ku def lu bon boo génnee mun nga ko weer ñaan loolu président de la république parce que nag wax dëgg yàlla nag santé bi moom war na mën a avancer comme yeneen dëkk yëpp. war na mën a avancer bu baax a baax a baax tey jii man su seetaan ay France ñi ci di am ay doom foofu ma gis sa jëkkër di la assister wala sa di la assister ak tubaab bi niñ lay toppatoowee niñ lay toppatoowee gënuñu ñu ay doomu aadama lañ comme ñun te normalement boo dee xool ñun na leen gën a war a laa biir. ñun ñoo leen war a gën a laabi mais pourquoi ñoom ñu gën ñu laabi ñaareel ba te ñun jigéen ñi lay toroxal ay sa mbokku jigéen lañ di jurkat comme yow ñoo lay toroxal di la maltraité di la def yenn yi hôpital boo ak yenn wax yi ñaawi hôpital boo demee góor ñi sax ñoo ëpp yërmande jigéen ñi ndax man damay accoucher góor maltraité ma def ma jigéen maltraité ma def ma lu nekk wax ma wax yi ñaaw wallahi azim su ma fanaanee ci opital ba bu bëri sa su ma xëyee médecin bu góor bi bu ñëwee daf may nabb nabbee ba sama yaram bi di daw damay wax yàlla lan moo tax bi may wasin kii dimbale wu ma woon pourquoi jigéen di ma dimbale man léegi damaa dem ba nga xamante ne ma dem hôpital fekk fa góor moo ma gënal ma fekk fa jigéen parce que tellement que jigéen ñi bon nañu ci ñenn ñi ma ko sañ wax soxor nañu ñàkk nañ kees doy nañu waar mën nañ ay wax yi bon